SeneInfo International SeneInfo International SeneInfo.net dalee nag jàmm si lu gën a fës si xibaar yi mardi 5 décembre 2023 Euh, les échos euh, la ñuy commencé moom nee na Sonko réclamé à l'État euh, mille deux cent cinquante milliards de francs CFA ñu ne euh, di nga xamante ne euh, recours bi nga xamante ne Sonko déposé woon na ko au niveau de la cour de justice de la CEDEAO donc euh, loolu la journal bi xëy xamle euh, nee na euh, bill 250 milliards la Sonko doon réclamé à l' état du Sénégal nee na 50 750 milliards en guise de réparation de dommages et intérêts pour moom pour lui 250 millions de dommages et intérêts pour sa famille et 20 millions pour le paiement euh, des frais de justice. Euh, selon la Cour, la grève de la fin est à l'origine de la détérioration alléguée euh, de son état de santé. lire la décision de la Cour de justice sur le cas euh, Mame Mbaye Niang euh, et la sétention euh, du parti PASTEF l'affaire aji Sarr donc loolu la journal bi xëy xamle tey à sa une Walf Quotidien moom dafa ñëw ci cinq ans de disparition cinq après après la disparition de Sidi Lamine Niass après Walf ñëwaat ci nga carte moom mooy doomam bi Cheikh Niass moom daf ko bindal benn livre mu ne euh, le livre vient à son honneur donc euh, prémonition salvatrice euh, du moula loolu lañ ko tuddee livre bi donc ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Niass di doomu Sidi Lamine Niass mu ngi ko si rendre hommage donc loolu la journal bi xëy fesal assa une ñu des rek si journal bi mu ne autorisation de l' administration à repousser l'heure de fermeture des bureaux de vote en décret polémique polémique donc loolu la journal bi xam xamle parce que dañoo jàpp ne ki nga xam ne moom mooy Mimi moom mu ñu ne euh, suñu autorisé autorisé administration bi pour mu repousser euh, fermeture des bureaux de vote bi loolu mun na indi euh, mun na influencer résultat bi résultat yi nga xam ne moom la ñuy am ci élection présidentielle yi donc loolu la Mimi Touré wax l'observateur moom mu ngi ñëw si saisine euh, de la drogue toog euh, bi nga xamante ne moom temps yii passé saisir woon nañ ko fële si marine nationale mu ngi ñëw def lañu gëstu bu yaatu si euh, saisine boobu moom nee na toute l'enquête sur les trois tonnes de cocaïne moom la journal bi xëy xam ne nee na l'identité de di personnes arrêtées et déférées hier au parquet dix-huit téléphones dont quatre satellitaires en GPS deux ordinateurs portables et l'argent saisi par la marine les déclarations enivrantes des suspects donc journal bi loolu la ñëw euh, yaatal euh, si sa euh, dans sa une an le chef de l'opération cite le fils du d'un président de la sous-région donc ki nga xam ne moom mooy dirigeante woon na opération boobu donc. Euh, benn doomu njiitu réew bi nga xam ne mu ngi nekk si sur région bi loolu la journal bi euh, xam le ñu des rek euh, si journal bi ñu ne supposé financement occulte de Sonko le grand malaise donc euh, nee na ki nga xam ne moom mooy député Matar Diop moom moo moo ko xamle nee na les révélations du député Matar Diop la peur de représailles la sécurité autour de la famille de du leader de l'ex-Pastef donc journal bi loolu la ñëw xamle tey. à sa une Vox Populi moom dafa ñëw euh, euh, à sa une ne euh, si le prix de l'arachide mu ne le gros nuage sur les huileries nationales donc loolu la xam ne ne le paysan cherche les paysans cherchent meilleure offre chez les exportateurs étrangers donc li nga xam ne jaay gerte bi donc paysans yi li nga xam ne moom ñoom ñooy béykat yi ñoom dañoo préférer exportateurs extérieurs yi étrangers yi pour ñu mun leen na jaay seen. seen euh, gerte bi donc euh, ñu des rek ci journal bi. mu ñëw ci sommet Renew à ah, Pâques 2023 ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall nee na Macky à combattre populisme radicalisme et extrémisme euh, violent extrémisme violent donc nee na ses ennemis communs sont les pires menaces la à la démocratie et à la à la stabilité de nos pays au nord. comme au sud loolu Macky Sall xamle ci sommet boobu journal bi tey rek mu ngi xamle cherté Euh, dund bi ndax nee na en euh, yaboy entre quatre cent et six cent francs en piment euh, à cent et le kilogramme le gombo à donc yi nga xamante ne moom mooy fruits ak légumes yi nga xam ne yow nekk si marché bi dafa cher bi nga xamante ne jéggi na doyoo ba nga xamante ne léegi yaboy bi sax léegi de quatre cent foo amul quatre cent wala six cent doo ko mën a am loolu la journal bi ñëw fesal à sa donc source A moom dafa ñëw si troisième arrestation euh, présumée en euh, carnage financier de 540 millions euh, de francs CFA au Crédit Mutuel du Sénégal donc Crédit Mutuel temps yii passé am na amoon na benn carnage bu fa amoon ñu doon am ay jiixi jàkk ak accusé donc nee nañ jàpp nañ ki nga xam ne moom mooy troisième personne bi nga xam te bokk na ci carnage boobu. donc euh, ñu jës rek ci journal bi mu mu nekk de euh, des îles Canaries euh, professeur Serigne Mor Mbaye psychologue ak clinicien en santé mentale parle du drame de l'immigration clandestine donc moom def na ci gëstu yaatu yaatu ki nga xamante ne moom mooy Mor Mbaye moom nga xamante moom mooy psychologue donc ci journal bi interview baa ngi ci journal bi Sud Quotidien moom dafa dafa ñëw encore rek ci Macky Sall appel de Macky nee na union sacrée contre le populisme le radicalisme et l'extrémisme l'extrémisme violent donc nee euh, l'appel de Macky le président invite les dirigeants africains à défendre les idéaux démocratiques et, et à combattre sans, concession et sans répit la doctrine de populisme de radicalisme de l'extrémisme violent c'était l'ouverture à Dakar de l'édition 2023 euh, du sommet des dirigeants libéraux d'Europe et d'Afrique donc Macky Sall loolu la woote pour ñu vraiment euh, combattre li nga xamante ne moom radicalisme ay extrémiste extrémisme violent lool la journal bi xëy euh, tey euh, fesal sa une ñu des rek ci journal bi li nga xamante ne mooy euh, l'association nationale de presse euh, sportive donc démb fixé nañ conditions yi nga xamante ne moom la ñu war a euh, participer ci CAN CAN 2024 la coupe du monde en Côte d'Ivoire donc ñoom déjà joxe nañu avance de vingt cinq vingt sept millions pour hébergement bi donc loolu la journal bi xëy tey fësal à sa une. chers internautes de Sénéinfo international Sénéinfo.net lii la ñu indi noonu si lu gën a fës si xibaar yi mardi 5 euh, décembre 2023 ñu leen di ñaanal jaajëfal bu baax a baax euh, si teewlu bi te di leen ñaanal yéen. Sene Info International.